ñaata député la fa am treize euh, euh, lu mat treize député la amoon ci euh, liste boobu ci ci ci coalition yeeyu ak loo mën a wax maanaam ci ci ci kii bi nga xam ne loolu bi mu boolee maanaam Khalifa moo ci amoon mais danga ngaa gis ne 24 député la mujj am astaghfirullah 23 laa bëgg a wax moom la mujj am 23 yooyu ci koo xam ne am nga daanaka tuuti nga ci dolli mën a pare na ñaari ci présidentielle mën a mën a pare na ñaari candidat mais kon nga xam ne loolu ñu doon def defe nañ ne ñu ngi yàq suñu borom loolu la leen may ba ñu am 24 députés mais wala ñu ko seqaloon nga xam ne ni taxoon ñu defoon l'intercoalition boobu mooy bu ñu yegee ci présidentielle xam nañ dañuy xañ Sonko Karim Wade xañ nañ ko Khalifa xañ nañ ko ñu bëggoon bu amee majorité ci ensemble suñ fa yeggee am taxawaay bu rafet ñu yeggee ci tànn bi lañ njëkk def mooy dañ ne Barthélémy Dias mooy nekk ñu daal di xaaj ne Barthélémy Dias Ahmed Aïdara daal di waxaat keneen ki nekkoon PDS moom it Lamine Thiam nga xam ne ci législative boobu ñoom bu ñu jiitaloon intérêt général tey mën naa ne ku mel ni député honorable député Mamadou Lamine Diallo bu tekki te demewoon ci liste wàllu tey kenn gënu ko woon a jekk tey bu defoon ko président assemblée nationale bu boobaa seen 80 députés yi sûrement ak deux députés yi ci des dañuy daal di mat 82 te lu néew néew néew gis nga Mimi Touré dañ defoon kon ak Mimi Touré da nga gis ne kon ñoom doon nañ am 83 83 euh, yooyu ñu am kon bu boobaa ñoom ñooy doon majorité ci assemblée nationale bi kon danañ mën a taxaw fexe ba nga xam ne Karim dana bokk mais Khalifa dana bokk Euh, Ousmane Sonko dana bokk mais ñoom ñu jëm ba mu yàgg Macky Sall wan leen ne mën ngeen a bokk te Ousmane du bokk ñoom ñu nangu loolu. waaw léegi bu ñu doon ñëwaat ci euh, par exemple benn inter intercoalition bu mel ni wala ndaje bu mel ni euh, ki nga xam ne moo di waa PDS waa waa APR maanaam retrouvailles des libéraux. libéral ba tey loolu sax arrivé Ousmane Sonko ci ci scène politique bi dafa boole ñu mën a ànd maanaam les libéraux. fexe na ba boolewaat leen benn même bu dee ñoom tey buñ ko mënee layale liñ defante sax dana des ci analyse PDS def na ko waaye ñàkk na ci duñ xam te Euh, wolof nee na luy naaw sey donko di ruus fa nga jëm du sori. gis nga ñoom aw Abdoul Ba ku mel ne Doudou Wade envergure bi mu am ci PDS gis nga liñ dem taxaw ci mer te loolu mooy dëgg léegi nag loolu nag mu des tey ndegam tey ña ña ña doon ña nekk ña doon wàllu si ñoo bi ci teen bi sàkkam ci balaa ñëwoon ci pind bi ndegam waa PDS ci boppam ñoo tas ñaar jàpp ne coalition boobu c'est contre nature waruñ ko def waxantuma laak sénégalais yi nga xam ne waa ji taal na seeni xel ba ñu war a xam li ñu kon dama jàpp ne efficacité bi maanaam l'intercoalition mi ngi efficace donte ne nag booloo gi moo gën ci ñoom mais mi ngi doon efficace bu fekkoon nga am confiance askan wi. am confiance askan wi xam nga lan la woon. ñoom waa Benno Bokk Yaakaar dañoo waroon a jouer le jeu. comme ni ko parti socialiste defee woon ci njëlbéenu Ablaye Wade. bi muy toog non jouer le jeu mooy franc jeu ci jeu démocratique wane ne Sénégal moo leen ñor. gisoo fi débat d'orientation budgétaire mais loolu problème yi ñu am yëpp bokk na lu ci lu ci doon Sénégal tey war a def débat d' orientation budgétaire budget bi nga war koo def ministre du budget taxaw amaana bu ministre du budget taxawoon doon la leeral tey lii Ousmane Sonko leeral jàkkaarloog député yi wax ak ñoom xaj na loolu lañ doon daw mag muy jëli jooy yaa xam la ngay jooy ñu daal di dëddu débat d' orientation suba ñu tas loo leen CES ak HCCT ñu taxaw bañ koo tas ba pare teg ci lan bu leen neexee buñ ko tas mais daal ne dee deme mais nag ñoom li tax ñu bañ ko parce que tamit ñoom nee nañu ñi nga xam ne ñoo di Ousmane Sonko ak e. nga xam ne moo di CSE fond euh, fond bi tamit dañ koy daal di dindi non fond bi Ousmane Sonko waxoon na ne boo bëggee mën naa laa tegal vidéo fond politique dañ ne dañ koy encadré dégg nga ko ba ko Karim Gueye di wax mu ne am na ñoo xam ne dañuy yàq say wax ëllëg daal di ne fond boo xam waaw déglu ma rek man boo bëggee mën naa la koo tegal voilà ne dafa ne waaw ma wax rek hmm. waaw kon xam nga yaa ma gën a xam li ma lay wax hmm. dafa ne dañ koy encadré maanaam li ñuy wax caisse noire dootul am dafay doon fond boo xam ne dana am kuréel yoo xam ne hmm. danañ ko saytu beneen bi mooy dañ koy wàññi mais jël xaalis boo xam ne nit mën cee jënd ay ay ay ay ay ay homme politique ay transhumance affaire yu demee noonu mu sens fonds politique fonds spéciaux ñu def ko fonds spéciaux am fuñ ko wutal tey loo xam ne dañ ciy jàpp jàppale ñenn ñi nga xam ne loolu loolu xam nañ ko léegi kon ñoom loolu ñu doon lay du lay mais problème bi mooy seen lay la buñ ko tas am nañ ci droit mais dès demi dinaa déposer motion de censure pour la pour la pour faire mal askan wi gis li ñuy gis gis nga foofa euh, Amadou Ba man damaa jàpp ne parfois dafa bëgg démocratie de trop parce que nee na leen yéen xam leen ne ci minorité ngeen jëm. naka ni dafa waroon a fekk ngeen def ay réforme yoo xam ne ñun ñu ngi nii bi ñu nekk minorité mënuñu def benn proposition de loi ba mu jàll ñaata proposition loi euh, question écrite la Bart la Guy Marius Sagna bu te dañ ko waroon a tenir compte loi ànd sàmm jikko yi bi mu ñëwee fii dañ koo dëdd laajuñ kenn sànni ko nit ñi ak yeneen ak yeneen def nañ fi loi buy may euh, euh, président Macky Sall ci Covid bi mu mën a euh, gouverner maanaam te du leen laaj du leen tànn loolu moo indi dégâts yi ñu def fii mhm. lu ñëw ñu daal koy def voté ko def ko lu ñuy wax secret défense lu ñëw duñu lañ bët duñu duñu kii problème yooyu ñu doon def xam nga dafa am loo xam ne député moo ko war a def député moo war a contrôler l'action du gouvernement moo war a natt euh, nattal mbir yi gis nga yow même bi ñuy taxaw di di defaat euh, kii bi ñu doon modifié Abbas moom nga dégg muy proposé Euh, que jundul bi ñu doon wàññi ñu pare pour taxaw ci tegaat yeneen loi Guy Marius ñaa ngay gis muy taxaw mel ni ñoom ñoo nekk mel ni ñoom ñaar ñooñu bokkuñ sax mouvance présidentielle pour man ñoom amoon nañ occasion pour wan askan wi ne suñu yeggee ensemble bii kat te bu boobaa président Diomaye est-ce que doon na am intérêt mu nekk ci mu tas ensemble bi parce que dana ko wóor ne ko ensemble bi suñ demee ci loi de finance bi nga xam ne tey moom lañu ñu waroon a def bii nga xam ne mooy 2024 doon nañu voté li nga xam ne moo am sens bu ko defee ñu xaar ba nga xam ne affaire yi euh, jàll ñu doog a xool ñu ñëwaat sawar bi ñu ngi dem non man euh, <laughs> na xali xali ñu ne ngay changé voilà waaw teel ñett rek fi ngeen ko man salaamaaleykum rahmatulah man la euh, bokk ci plateforme ànd doole liggéeykat yi mooy euh, coalition boo xam ne dafa fas yéene def élection législative. président Issa Dieye mooy candidat mooy mooy mooy mooy kii bi mooy titi mooy tëdd liste bi en tout cas ñu ñëwoon tey def déposé suñu dépose suñu lis euh, bon loolu la. léegi euh, waaw ñu ngi ci département yi ci ëpp ci Sénégal euh, déposé nañ suñu liste titulaire ak lépp li nga xam ne war nañ ci dem pour élection déposé nañ ko. li tax loolu mooy ñun artisans yi maanaam coalition la boo xam dafa seq li ëpp ci artisans yi. muy cent vingt corps de métier yi nga xam ne ñu ngi ci Sénégal nekk ay artisans ak sëfoor yeeg ñëpp ñu ngi ci biir bon ñu fas yéene demal suñu bopp ren euh, assemblée dañu daan yónni ay nit ci suñuy soxla ñu dem taxaw di ko wax ren ñu bëgg euh, demal suñu bopp wax li nga xam ne mooy suñu jafe-jafe parce que nit ki li muy wax mu mu dund ko moo gën a moo kii beneen bi tamit ñu ñëw pour nekk nekk équilibre troisième force bi nga xam ne dañ ko bëgg